Eva don actrice bokk foofee ca Poté Marichou nekkoon ab série bu doon daw fii ci askan sunu gaal ñu ràññee woon ko bu baax a baax ci séeri boobu noonu Eva moomu tey ci talaata bi la ñuy xëyee gis ci Instagram mu dugal ay photo moom ak jëkkëram bi di pii nekk seexandooru ji di xam ne rek ne am nañ doom bu jigéen Eva ak ki nga xam ne mooy jëkkëram bi di pii nag doon animateur ñoom ñaar ñooñee kat nekk ay nit yoo xam ne ràññee nañu bu baax baax fii ci Sénégal ñu ngay kontaan di bu baax a baax di xam ne rek ne am nañ ab princesse am nañ doom bu jigéen boo xam ne ñëw na ci àdduna ñuy ñaanal nag xale boobu noonu gudd fan ak wóor tamit fekkee lépp ci darajey Nabi Moustapha par ma voix équipe Dakar Live nag ñu ngi félicité ñaari couple yooyu noonu di ñaan rek doom ji dund ak barke